Euh, meeting bi ñu wax léegi déroulement meeting bi ak euh, le discours du président Ousmane Sonko discours bi nga xam ne ni un discours guerrier des formules guerrières gatsa gatsaak affaire yi demee noonu discours boobu noo ko jàngatee discours bi nga xam ne nii voilà. mais man discours dama koy saluer Mbissane. Mhm. c'est normal. dañoo xam ne ki nekk en face moom mhm. euh, gis nañu lu mu def comme on dit en français mhm. on apprend des erreurs du passé mhm. gis nañu nu ñu def xalifa Sall Karim Wade nest pas ñun nag président Ousmane Sonko ko xam xam ci ligne de conduite bu mu nekk musul euh, yox yoxi ci benn yoon donc loolu noonu dañoo gis lu fi jot a jaar parce que dossier bi discours lu tax mu tenir ko dangay xool dossier biñ koy biñ koy biñ ko biñ ko jiiñ présumé de viol yow nga xamante ni preuve ñu teg yëpp dafa décharger président Ousmane Sonko ñoom ñiy jiiñaate amul benn élément de preuve bu ñu indi donc dama ne dossier bi enquête gendarme la waroon yem waru woon saa yegg si fii nii fii fii fi fi mu fi fi fi ñu tool ni mais malheureusement saytu nañ président Ousmane Sonko depuis bu mu nekkee euh, impôt domaine quinze ans yu ñu fa def xool ci livre de de domaine xool est-ce que am na fa ay terre lépp xool nañ gisuñu lenn loo xam ne mën nañ ko tuumaal lenn lañ mën def def seen benn complot ourdi bi nga xamante ni mise en scène bi doxul mhm. acteurs yi dañu nekkoon ay cuune xam na mhm. moo tax loolu moo leen topp mais nag dañ ci bëgg a mooy te vraiment mois mois de mars bi passé deux mille vingt et un mhm. euh, loolu ku mu junjul vraiment ku mu doyul suñ ko naree toll nag lu raw loolu moo nar am te foog naa na ñun Sénégal duñu duñu du ñu yegg foofu parce que injustice bi nekk ci réew mi doy na Macky Sall am na lu ko doy sëkk ci ay dossiers yoo xamante ay nitam ñu ko jege ñoo xamante daf ñoo dañoo luubal lu gë dossier bu gën a récent mooy Cour des comptes wane ne mille milliards yi sénégalais dajale woon lii ñu def ko genre télécom téléthon askan wi contribuer ci mhm. leneen lii ñu dem lebi ko ah mhm. ba pare ñoom ñu jël ko tëj nit ñi ne leen couvre-feu bu leen génn ñoom ñuy pàccoo alal jooju nga xamante ni askan wi la waroon dem loolu rek doyoon na ko moom su nekkoon quand même koo xamante ni justice moo ko taxoon jub ñooñu dossiers waroon na leen yóbbu tribunal ñu gérer ko leneen li moom moo wax ñëpp dégg ne moom am na ay dossiers moo ciy teg loxoom donc loolu wane na ni lii ñuy instrumentaliser yëpp ah, mën nañ ne loxoom génnu ci ndax ragal adversaire politique je pense que démocrate ak républicain bu muy wootee dafa des voilà mais dossier bi dossier bi ngay wax dossier Adji Sarr supposé viol nee nga dossier bi dara nekk ci ci lan nga basé wu exactement ba wax loolu parce que ñoom génn nañu certificat médical et tout et tout convoqué nañu Ousmane Sonko doyen des juges convoqué na ko et tout bañ na def test aada ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc yooyu yëpp ñoom ñu ngi koy brandir ne bu dee tamit il n'a rien à se reprocher mënoon na def test ADN bi mënoon na répondre question doyen yooyu yëpp defu ko ñoom loolu lañ leen di reprocher aussi kon yow fan nga basé ba ne tamit dara dara ci. Euh, Mbissane dossier bi soo ko xoolee. Mhm. Euh, nga ko def historique. Mhm. dañ ne suñ nee viol. Mhm. présumé de viol pièce maîtresse bi mooy certificat médical. gis nañ fi tout récemment ci diggante bi am na ñoo ay présumé de viol lañ leen accusé mooy. Euh, Californie l'instructeur de Macky Sall waaw waaw kooku bi nga bi ñu defee sept médical ñu gis ne yeggul ci ndaw si lan lañ ko mujj accusé coup et blessure Sitor Ndour bi ñu xoolee nee nañu yaayu pénétration donc dañ ko mujj tëj mhm. donc yow ñu ne pièce maîtresse bi mooy mhm. certificat médical certificat mhm. médical déchargé président Ousmane Sonko liñ ci wax ñëpp gis nañ ko parce que c'est un certificat médical boo xamante ni foo dem ci réseaux sociaux yi di nga ko gis. Mhm. donc ne la so ndaw si amul kenn kum ko séqal ci quarante huit heures yi. Mhm. fekkuñu ci moom benn lésion. te ñàkk na ndawam lu yàgg. Mhm. donc suñu nee loolu noonu à partir de ce document rek fa la ñu waroon yàmmale mbir mi ci enquête de la gendarmerie. ñu dem leneen encore ñu ne ndaw si waxtaan ak sëriñam. def ay audio. bala ñuy ñëw foofu ñu des ci certificat médical bi parce que certificat médical bi aussi bind nañ ci des prélèvements en vue d'un test ADN test ADN bi nga xam ne ni Ousmane Sonko aussi nee na du ko def. aussi loolu waaw xam nga dama lay expliquer yow soo nit su ñëwee ne dañ ko violer rek première chose bu ñuy def mooy. Mhm. su ko médecin bi consulter ba pare mhm. day def ay prélèvement loolu loolu procédure bi moo demee na mhm. dañ def ay prise de sang pour xool defal la yenn comme que am na ay infection sexuellement transmissible mhm. yoo xamante ni ay VIH ay syphilis yeneen pathologie yoo xamante ni infectieuse mhm. dañ la def ay prélèvement génital mhm. xool ndax yow ki yegg si yow wàllu la ay jàngoro loolu loolu c'est si procédure bi la bokk mais ci kii nii dañ ko defal defal nañ ko prélèvement c'est évident suñ ko defee prélèvement dañ ko yóbbu labo analyser ko mais lu gën a graaw mooy man dama liir fan yi ñu ne prélèvement bi médecin bi attesté na daf ko def le 3 n'est-ce pas février la ko def 2021 ma gis si réquisition procureur kii bi doyen des chambres procureur ñu ne le 2 lañ ko def te yow résultat euh, examen bi ñu def le 3 anam ñun dañoo génnal un faux prélèvement ñu ne un a vu des spermatozoïdes vivants foofu ñu jóge alors koo xam ne médecin bi examine nee na kii séyul depuis 48 heures et que fekkul benn légion si moom ñàkk na ndawam lu yàgg donc ñoom ñi bind seen seen réquisition war nañu wax fan lañ jëlee seen faux prélèvement boobu donc pour wane ne euh, lii nii dañoo nekk di nasaxal justice su réew mi te loolu baaxul parce que lii su jàllee moo ñun góor ñëpp on est en sursis jigéen mën na la yuuxu léegi da ko violé nga ñu brandir certificat médical ñu ne kii kenn yeggul ci kawam mais comme ko wax na rek donc moom la ñuy gëm dañ lay yóbbu chambre criminelle xam nga loolu aussi euh, waruñu woon yegg fii quoi. Mhm. parce que Sénégal dañ ko yàgg a naw ci démocratie dañ ko yàgg naw ci état de droit. Mhm. donc suñ ñëwee ci ci ci président Macky Sall ñu nar a naxasal justice vraiment magistrat population bi war nañ jug parce que comme di dit euh, la justice est prononcée au nom du peuple askan wi ku leen xool soo defoon micro léegi par rapport ak dossier bii nii. di nga xamante ni dëgg bi xam nañ déjà fu mu féete donc président Macky Sall maa ngi koy ñaan bu mu li mu bëgg rek def parce que ko forcé aussi leneen lay yeneen problème lay indi la réew. yeneen problème lay indi bind nga sa testament wala bind gooyo fii ñëpp bind seen testament ndigal bi jib na donc euh, ñëpp bind seen testament di xaar parce que li ñu nar a def injustice la. loolu ñun xam nga préféré sax nga dee ci ngor que ngay dund ci humiliation lii moom su jàllee vraiment on tien la le, le peuple devant les faits mooy kenn warul nangu lii nii parce que population ñoo war a jug ne procès waru fi am parce que tellement y a beaucoup d'éléments de de preuves en décharge pour président Ousmane Sonko ndaw si ba ñu jàkkaarloo ak moom ak président Ousmane Sonko di devant doyen des juges biñ ko laajtee ana say preuve joxewul ay preuve nee na doyen ji loo def baax na alors que président Ousmane Sonko indi na preuve certificat médical indi audio MC Niass indi rapport interne de la gendarmerie bu wone ne le procureur l'ancien procureur moom am na manipulation yu mu def ci ci ci ci ci kii bi. ci ci pro euh, ci procès verbal bi. Mhm. donc yooyu noonu yëpp c'est en décharge du président Ousmane Sonko donc loolu su nekkoon rek ci dëkk boo xamante ni euh, justice bi dafa tëddee njaaxanaay vraiment waruñu woon yegg fii ci enquête ba la ñu yem dossier ba ñu classé ko. même lu ñu ko indi ci bureau douane yi di mu waroon am grand def non lieu ñu dem seeti leneen mais comme il sait que le président Ousmane Sonko c'est le chef de l'opposition qui est un adversaire de taille te ñoom dañoo def ay luubal yoo xamante ni ragal nañ leen su ñëwee da leen di topp comme ni ñu def ñoom Karim Wade donc loolu moo leen tiital ñu bëgg a mooy ci dossier vide bi mais quand population baa ngi fii le peuple sénégalais est très éveillé mais quand même dinañ au moment venu. lu tax ma laaj la ndax bind nga sa testament xam nga ko président Ousmane Sonko nee na bind na bosam am na ñeneen ñuy génn bind nañu seen bos Birame Souleye Diop et tout nee na xeex la ñu jëm œil pour œil dent pour dent en ah, wolof mooy gatsa gatsa maanaam ku la dóor nga fayu loolu noonu ban forme la nar a jël parce que li nga gis ñun ñëpp ñu koy gis. peut-être gendarmerie nu muy déployer si terrain beeg yi demee noonu ñee aussi en face ñu ngi pare la confrontation donc peut-être rapport de force lañ jëm à votre niveau rapport de force boobu ban forme la nar a jël exactement. non man dama lay expliquer ñun yàlla def na ni on a une armée républicaine armée sénégalaise moom ku leen xam même s'il y des débordements. Mm -hmm. on sait que surtout la gendarmerie sont très très professionnels. Mhm. on se rappelle des événements à un moment donné ils étaient débordés mais malgré cela man dégg ma fenn fu ñu ne ay gendarme tiré nañ ci ay nit peut-être y a eu des des des bavures waa côté police voilà mais dama lay expliquer ne on a une armée très et que population bi aussi gëmmuñu nelawuñ donc ñun suñu bàyyi injustice bi jàll mu nekk une justice à deux vitesses lu waay neef de soo bokkee parti au pouvoir loo def ñu teg ci seen loxo mu jàll soo nekkee opposition ñu patam patamee la yóbbu la loolu loolu dafa war a jeex parce que la justice elle est prononcée au nom du peuple ñun askan ñun ñooy voté def suñ constitution n'est-ce pas nul au-dessus des lois képp koo xamante ni def nañu def nga lu dul yoon justice mën na def liggéeyam mais lii nii dafa flagrant trop trop misan parce que élément de preuve yaa ngi nii ñu tege ci table bi ñëpp xam nañu lii nii c'est un dossier monté te lu ma ci seetlu mooy ñëpp ñu nekkoon témoin muy euh, ki moomoon salon ba Ndeye Khady Ndiaye son mari euh, deuxième master bi ñoom ñëpp li ñu wax dañoo satal président Ousmane Sonko mais ña commandité euh, complot bi ñoom it kenn kiwu leen avocat bind kii Mamour Diallo ñu ne moom moo def commande otoom lañ doon jël keneen je sais pas xaw ma nan mbay si di mbay quelque chose comme ça mais ñooñu kenn dugalu leen ci mbir mi. c'est comme si ñoom li ñu def bon c'est bien parce que sont du côté de l'État et que ñeneen ñi ñoom la ñu war a dugal donc loolu baaxul ci réew baaxul ci réew day naxasar réew parce que dëkk bu amul justice mooy anarchie moo fay juddu et anarchie fu mu juddoo donc lu waaye neex def te loolu bugguma quand Sénégal ñu dem foofu noonu parce que jot na. société civile bi les chefs coutumiers les chefs religieux ñu jóg waxtaan ak président Ousmane kii euh, Macky ñu ne ko fi nga bëgg a jëmee réew mi vraiment doxul na yeggali ces douze mois ou treize mois qui lui reste mu su amee ab dauphin am bu mu mën a euh, proposer pour mu nekk candidat pour le Benno wala l'APR mu def ko mu bàyyi ñëpp képp ku bëgg a nekk candidat nga présenté wu sénégalais ñooy jugé ñooy fal ñu xool ku leen doy ñu fal le 2024 forme xeex bi ngeen nar a xeex te le président Ousmane Sonko décrété ko ca Kër Massar ban forme la nar a jël exactement parce que luy luy daw ci réseaux sociaux yi ñu ngi koy gis gis nañu ay adresse yu ñuy joxe ay numéro téléphone yu ñuy joxe et cetera et cetera et cetera lu tax Sénégal yu bëri tiit ragal ay tension forme bu mu nar a jël exactement à votre niveau ban forme ngeen nar a jox xeex bi. non xam nga misaan. pense ñun suñu constitution dafa leer. ku ñu nar a xoqatal ba fuye say droit am nga droit résister. ban forme résistance. non mais résistance mën na nekk verbal mun a nekk physique. on a vu au les mois de mars deux mille vingt et mais ku ñu nar a xoqatal di nga di nga fippu loolu c'est une évidence maintenant force de l'ordre yi nag ñoo war am professionnalisme. bàyyi nit ñi suñ bëggee manifester seen mécontentement ñu def ko. Mhm. pas ñu nar a heurter nit ñi. parce que li xew. man bugguma ñu yegg foofu mais su naree am quand même ku nekk na jël say responsabilité parce que ñun aussi du ñu bàyyi président Ousmane Sonko mu nekk suñu espoir ñu seetaan ñu naxasal Mamadou Dia Cheikh Anta Diop ñeneen panafricain au niveau africain muy Thomas Sankara lu Lumumba président Ousmane di incarner valeur yooyu n'est-ce ñu koy bàyyi ñu koy naxasal juste pour les beaux yeux de certains multinationales ou des intérêts crypto-personnels loolu quand amul benn militant Pastef wala sympathisant bu koy seetaan. Hmm. Euh, yow boo ko doon conseiller parce que ñu bëri ci waa Pastef même bu dee moom clairement waxagu ci dafa war a dem wuy ji chambre criminelle wala déet yow personnellement. no xam nga président Sonko bi muy wax keroog euh, meeting Kër Massar dafa ne. Mhm. le moment venu dinañ ci artu. mais ñun sénégalais ñoo war a jóg ne lii nii ce dossier vide avec tous ces preuves euh, ces éléments de preuve procès waru fi am procès waru fi am misaan parce que lii su jàllee mooy jigéen soo ko xoolee saa mu yuuxu viol yow chambre criminelle lañ lay yóbbu mais loolu benn góor waru ko seetaan fi Sénégal loolu vraiment injustice la injustice notoire loolu kenn waru ko seetaan donc procès moom buñ ko xalaat sax procès moom du fi am parce que ñoom. Mhm. tànn nañ seeni juge tànn nañu seen i magistrat tànn nañu seen yëpp teg fii lañ doon wax avec le cas de Khalifa Sall laissons la justice faire son job xam nañ fu mu mujjee justice bi pouvoir exécutif moo koy manipuler li ñuy wax séparation de pouvoir yëpp loolu dara amu si ay waxi kasaw kasaw la. te pourtant boo leen di porter plainte par exemple Cheikh Yérim Seck ci justice bi ngeen dem porter plainte. est-ce que c'est pas contradictoire aussi loolu wax ne magistrat yëpp ak juge yëpp. Euh, ils sont pas truc ils mm-hmm. am na ñoo xamante ni suñu créé seen chambre yi ñoom ñooy choisir seen juge teg ko fa. Mm-hmm. ñoo xamante ni dañoo ànd ak li ñuy def. vous comprenez donc loolu ñun loolu la ñuy xeex au fait mm-hmm. parce que justice bi dafa fa ñëpp ñoom seen biir parti au pouvoir képp ku fi def jéeya. wala lu lu lu demee lu dul yoon en général du mujj fenn souvent dañ lay tëj ñaar ñetti fan defal la liberté provisoire nga nga dem wala condamnation par sursis mais dama gis ne képp ku nekk opposition soo sëqatee saa nga am ak ki ak justice dañuy activer machine judiciaire bi facilement ñu ñu kii say dossier te lii ñuy wax ci chambre criminelle bi dégg na am na ay dossiers yoo xam ne depuis 2012 ñu ngi en instance donc même suñ ko bëggee yóbbu du jugement boo xamante ni ci at bii lañ koy def peut-être mën na jël ay at des dossiers 2012 ba léegi balaa ñëw dossier 2023 quand même dina fekk élection 2024 yi mais seetlu leen dinañ jéem def lu nekk pour mais ñun askan wi quand même euh, particulièrement les militants et les sympathisants du PASTEF du ñu nangu loolu hmm. mais aussi Sénégal dañuy wax ne Sénégal état de droit la c'est une république forte mais dans une république normalement bu ñu convoqué nit muy yow muy man normalement dafa war a dem wuy ji justice mais est-ce que tey bu ah. Ousmane Sonko taxawee ne du ma wuy ji mais de waxagu ci dara am ay partisans yoo xam ne ni ñu ngi koy exhorter ne bul wuy ji tamit est-ce que loolu c'est tam exemple bu baax la ci ci Sénégal aussi non sinon citoyen bu ne mën na taxaw ñu woo ko mu ne du ma wuyu ji quand même xam nga li ñu tubaab naan devant l'injustice nu nul n'est tenu d'obéir soo gisee nga xam ne lii injustice la yow mbisaan quand munoo fa dugg ñu ne la yow fii soo fi duggee dañ la dañuy dagg sa bopp doo fa dem di fa dugg parce que da nga xam ñoom lu ñu préparer ba pare donc ñun suñ nekkoon état de droit dëgg la état de droit lañ nekk loolu la ñuy wax mais dañoo gis ci pratique bi dafa des on a une justice à double vitesse justice boo am day opprimer lu ci ëpp ci néew di doole ñoo xamante ni euh, peut-être que amuñu yenn yenn yenn base mm-hmm. maintenant ñoom ñi bokk ci pouvoir bi mm-hmm. facilement suñu amee problème justice gis nañ fi ay kaaw ñi defoon ay faux billets ñoom Bougazeli ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni taf-taf dañ leen fa yóbbu tëj nañ leen waa tëj leen après quelque mois ñu defal liberté provisoire mm-hmm. mais soo nekkee opposant moom vraiment fa lañ lay baay fàtte la fa et ñun nag li daal ñeneen ñi mhm. comme li ñuy gas soo gisee su ndobin rayee sa maam soo gisee lu ñuul daw mhm. dañoo gis ay antécédents yu fi amoon donc du duñu xaar ba ñu naan laissons la justice faire son job dugal fa président Ousmane Sonko ñu koy nga xamante ni directive yi euh, pale lay jóge mhm. ñu koy ñu koy naxasal alors que du duñ ko nangu loolu daal je te dis kenn du ko nangu si parti bi et on est prêt à faire face